ñu gën a teg suñu tànk ci taqwallah lu la waay mën a woo ak lu mu la mën a digal déglul ba xam taqwallah ak i bokkam dana ca bokk waaw wala déet su ca bokkee yoon waa nga noona su ca bokkut dégluwaatal bañ a tàyyi ba ba nga ko cay dégg wala nga bañ ko caa dégg loolu nag moo tudd ku way nit ku way deng bala ñu see ñëw ñu bokk jaal suñu bopp suñu doom yu ndaw yooyu nga xam ne ci fan yii ab natt wàccu na ci seen kaw te doonuñ ca dara xamuñ ca dara waaye lu tiis la ak wayadi nag mën na koo waral yal na leen yàlla jox xulub muñ te jox nu ko néew na ku am ñaar ñett te dalu ko waaye la fa yàlla du jeex yal na am kuutaay te kuutaay ya toog fa bañ fekk seeni njariñ ñoom ñépp amoon na fi nag du yàgg gut dellu amaat kon ak wayadi am na ci ku way ak wayate la ñuy waxtaane jële ko ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy fàttalante laajees na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf yi ana bu ci gënal yàlla tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mooy ba ca gën a sax lu mu néew néew nit ki su xamee la muy def fa ko teg benn muy ak jaamu yàlla lum néew néew na fexe ba saxal ko waaye su tàmbalee loo xam ne it jaami yàlla yi ñoo koy jariñoo it tamit lu dagan na fexe ba saxal ko lum néew néew ndax loolu moo gënal yàlla ci li jaam bi def lum néew néew na ko saxal mooy na ca way deng rek Aïcha radiyallahu anha nee na li yonent bi gënoon a bëgg nga xam ne ku ca teg sa tànk buñ ko sañoon a wax bu doon xaritoo yow lay def xarit mooy ci gën a way ci yéen mooy koo xam ne lu mu tàmbali duutu ko bàyyi te lañ daan tàmbali ci jamono yonent bi may xaritoo ka xaritoo la mooy lu baax moo tax nit ki jaaduwut jekkut muy def njur njural jàpp njur njural jàpp su ne capp fii ba nga yaakaar ne fii la mu ne waat ñokket ba nga ne dem na de mën naa faa toogaat tuuti bu dellusiwaat fi mu jóge woon wala muy dem ak a muy waye di ko sëkk moo tax nit ki li muy def muy ak jaamu yàlla jëlale nañ ko waaye su dee ay jëflante digganteem ak jaami yàlla yi tamit jëflante bu dagat bu set war naa fexe romb fa mu woon témb tey ñaan yàlla defal ko mujj gu rafet moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taamu wutoon musu koo taamu koo xam ne la muy def day mel ne njur njural njàpp koo xam ne nag tàmbali na mbir muy ak jaamu yàlla walla muy luy jariñ jaami yàlla yi te muy bàyyeekoo ci moom lu mu néew néew Euh, su fekkee ak wéradi moo dox digganteem ak loola wala ay yiteem mayetu ko su boobaa kenn dutu ko ca mën a yàdd ndax la ko la la am waaye cuut cappet cuut cappet loolu moom fi la waaye di tàmbalee ca la yam te bokk yi nattu boobu am am na loxo yum jaar ay yoxo yum jaar yoxo yoo xam ne Euh, la ko andi ca ñoom yaakaar la woon ak ak wóolu ak ñàkk pexe kon lu ci way yorati te jaamu yàlla yi di ko jariñoo rikk na ca way deng lu ko ca war mu def ko doonte mënut a defandoo lépp benn yoon waaye muy def par ndànk ndànk lu mu ca romb mu rafet mu fas yéene mu bañ a dakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax way am solo way deng nee na li nit ki di def ci jaamu yàlla walla mu di ko def ci jaamu yàlla yi ñu di ko jariñoo su koy def di ko def di ko def lu mu néew néew ba sax ba sax su demee ba ne làcc mënatul dara it yool ba du taxaw waaye su demee ba ne ci tukki it ba jot ga mayati ko it yool yool ba du tax yool ba du dakk ba ba muy wàññi suñu demee ci alquran danañ ci fekk suñu borom di wax ne laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin moo yàlla nee na moom moo bind nit ca nam ko soobe nam ko soobe xool na ko xoolaat ko ne nii da ko bëgge woon waaye nee na nit kooku sedd na ko ci mbindeefam mi loo xam ne sédd ko kenn muy xel ak xalaat tàmbali ak àggale waaye nee na léeg-léeg nit dem wayadee wayadee wayadee ba mujj dellu fa mu jóge woon dellu nam meloon bi muy soog a ñëw àdduna mënut dara day bank ay yoxoom buñ ko tàllalee ci niñ ko taawiile ci waxi maam ñu ne biñ ko tàllalee mu ne maa ngi nii yoruma dara andaliwuma dara lu mu def dañ ko koy defal mu ne yàcc nee na nit dina demaat ba tolluwaat foofee te fekk mi ngi dooleem ak kàttanam la ko fa yóbbuwaat mën naa màggat wala daal mënut ci aw yaramam nee na ba mu des nag ñi nga xam ne ñoom bañ tàmbalee man dara lañ tàmbalee def loo xam ne dañoo fas yéene fii ñu ngi dund du takk nee na ñooñu suñ demee ba mënatuñu it yool ba day wéy illa alladina amanu wa amilu saalihaati fa lahum ajrun gayru mamnun mooy yool boo xam ne du dakk suñ ba mënatuñ ko fàttali nañ ba tàyyi ne doonte duñ ki tàyyi ay yoon li tax way mat a jàng suñu digganteeg suñu boroom suñu digganteeg suñuy moroom ba saa boo waxee nit mu ne diw de ay waxam xar-xarab doj la am na mag mu ne woon fii ci dëkk bi dem naa dem a dem ci at ba tut ak njabootam ñu naan dafa naax waaye la muy naax naax xam waxtu julli bokku ci da woyoon wayoon dégg jamono ba muy man daa woyoon ci toppatoo waxtu julli di ko topp saa wax waxtu wi ne yullu rek mu toj bopp bi ni ñu koy wax ci njàngale suñu bakk bisu waaye fa mu tolloon démb ci wax xafamit kenn du ko génneel mooy dem ba fa kamil ba nekk mu génne ko waxaf la ñu bëgg a waxaf dellowaat ko loolu nag la ko ko way mooy daa tàmbali way ca deng lii ay jëf la muy jooxe waxtu yi waaye lee ay wax la muy jàng alxuraan ba mu ca waye ak way ba dem ba xam xàmmeetut waa këram nit nee na ko yaay sama baay mu ne ko déedéet kooku mu ne mën a diw mu ne ko no diw man mu ne ko sa doom mu ne ko déedéet aw ma doom bi tudd noonu kenn du ko jàpp xamatut xaalis xamatut ñam wu tàng ak wu sedd xamatut ay doomam waaye waxtu yi moom kenn du ko ne waxtu jot waaye kenn du ko génneel su muy waqafe bokk yi nag loolu mooy ak way am na keneen koo xam ne it moo kooku ñoo tolloo jamono am na bis muy wër lu ku tudd nangam sonn ca lool ñu defee ne maa kii lu mu koy doy mbaa jàmm la ndeke moo ko daa taalal rajo bi muy déglu tàggee yi rek waaye feeg a ngi dund kenn du ko def ku moom ndax way kon bokk yi li ñu séq ak suñu borom muy jaamu ko nañ ca way deng la ñuy jëfit te suñuy di ko jariñoo nañ fexe ba luñ ca wax bu mu dañ xanaa dogal bi yàlla dikk waaye luñ ciy jëfitam itam buñ ko xasee ba tàmbali ba mu dakk bu mu doon loo xam ne saa bu jafe-jafe amee rek ñu wax ba loola weesu ñu génnaat yàlla nun ci yàlla mosal moo tax suñu borom subhanahu wa taala jaarale ko ci njàngalem yonent bi ku taamu la ci jàmm lépp lu muy def lu mu néew néew mu saxal ko te wayca mooy wayca rek su ko defee ak payam di sax ba faw waaye nag yàlla taamur koo xam ne day tàmbali di bàyyi tàmbali di bàyyi sëñ bu mag bi nit nee na ko daa bëgg soxna boobu soxna ni mu yomb yombi wu na daanañ naweti ay naweti nawet dem takk am néeg fañ bëgg soxna sax ànd ak i moroomam di ko may ay xëy ak ngont ba mu ne gàññ te su ko neexee gànt nit ñëw ne ko daa bëgg soxna mu ne ko jullit bu ko man day sopp nañ ko lool demal seeti koo xam ne daray kenn nekku ca muy ab jullit nga xool ba xam ne dara boolewul ak moom luy tee nga mën koo denc nga laaju ña ko jur ñum doon soo xamee ña ko jur da nga mën a xam ci ko jum yoon fekkee ñoo ko yar suñ ko yor ci kañ ko yarloo du sore ak ñoom jikko wala muy wala muy ku leen gën su boobaa soo waxee kilifam bañ nangu mu nangu moom te jaar nangu ko jaar ci ay kilifam yebalu muy dem di génn ak moom de bu nangoo te jaar ci ay kilifam nga ñëw wax ma ko mu ñëw wax ko ko mu ne ko jàppal nañ la bis mu ne waaw ba yàgg mu ñëwaat ne dooy dañoo mujj fomm mu ne ko boo gisaatee boo déggaatee bi ñu la waxaatee bis ba yàgg mu bàyyi koo ko di ko def di ko def sëriñ bi ne ko mën naa laa jàppale ci lu nekk de ci kàttanu suñu borom ba mu des ak way te mooy fulla ak fayda te it mënuma fexe ba jàpp ci kuy àggale te ko tàmbaliwul dara lu ma lu ko yéene yéene fexe ba nga àggale te tàmbaliwoo dara loolu mooy way deng rek dem sax ba ci ñaan bi suñu borom santaane ci alxuraan nañ koy ñaan ud'uuni astajib lakum am na ñoo xam ne dañuy tàllal seeni yoxoo di ñaan di ñaan mu mel ne gisaguñ la ñuy ñaan buñ bëgg a tàyyi waaye ki way moom ginnaaw xam ne yàllaa bu digle moom du bàyyi benn bis lay xëy rek suñu borom sëmbërtalal ko loo xam ne sax jotu ko woon a ñaan ndax xamul moo gën ci moom walla déet asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun moo tax ñaan googu am na ñooñ dañuy toog ba di ñaan di ñaan di ñaan waroom xam-xam yi nettali nañ ne ba suñu borom diggalee suñu maam Ibrahima alayhi salaam bu dul suñu maam it daal ci ak bokk maam la ci pas-pas wa addin fi nnaasi bil xaj ba mu ko naan wool nit ñi digal leen ñu aj si màkka waroom xam-xam yi am na suñuy bind ci seen téere na ñaan ga ba màkka tàmbalee xumb ak ñaan googee nangami téeméeri at la wala nangami junni at waaye teewul bu ko yàlla digalee mu ñaan mu ñaan su ko su ko woote la mu woote rek ndax woote na ba tàyyi te gisut kenn ci àll bi lu dul léeg-léeg ay rab àll képp yuy sam waaye ndigal la ca am muy woy deng saa bu xëyee di rabbi jaal hada albalada aminan ak hada baladan amina warzuq ahlahu min althamarat loolu it ba mu koy ñaan at bi réew mu melee nii mu mel fekkiwu ko mënees naa wax sax kenn koo xam ne da koy laal mu laal ko fekkiwu ko waaye ñaan la ko digaloon ñaan na te way ca ñaan nga kon bokk suñuy diggante li ñuy digale ak suñuy moroomi jaam war nañ bu ñu waxee ñu wane ca way gu mat sëkk war na it bu ñu waree jëf ñu wana ca way gu mat sëkk waaye loolu nag day topp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu politik ak wayee di dong ci lañuy ñuy dund ndax mënoo ne benn mel wenn melokaan lañ yore melokaan mooy couleur léeg-léeg dañuy weex dal ba nga ne ak ah, ku weex la de nga romb ko ca ngoon mu ñuul kukk nga ne xanaa kii du kii mu ne xanaa kii du ko mu ne ah kay contexte la woon suba gaa taxoon ma weex waaye guddi gi ñuul la laaj walla nga séen ko ci guddi gi mu gàtt tuguj nga xëy gis ku ne xanaa kii du ma gis ka ma gisoon bii mu ne ah kay guddi gaa ko waraloon loolu nag fi la ko waaye di tàmbalee fi la yam te ñun kat li ëpp suñuy biir daa mel ne si ñoom lañ ko yaakaar. kon nañ leen fi ne ñukk dem yaakaar yàlla rek mi nga xam ne laa yuxliful miaat lum la wax dana ko def te am nañ ci ay firnde bim ne kullu nafsin daiqatul mawt ñépp a gëm ne ñoom ci seen bopp dañuy dee ndax gis nañ ko dee ba tàyyi kullu shay'in haalikun illa wajha ku ne dox na ci sa àll ba nga gis dëkk bu gent kullu man alayha faanin fii la diw dëkkoon gis fees na ko ba tàyyi moo tax mag ne woon adduna ñetti joxañ rek la diw moo moomoon lee moo dëkkoon fe fii lañ ko denc kon noonu yàlla ne kullu nafsin daiqatul mawt bis bu set ngay dégg ay tàgge diw dem na diw dem na diw dem na kiy déglu day defe ne moom demagul wala waragu caa bokk nañ la jàkk foofee te bàyyi di xool koo xam ne amutu melokaan su weexee ci suba gi bu ngoonee mën naa ñuul su gàttee ci guddi gi bu bëccëgee mën naa bu bët setee mu gudd boole ko di tuddoo mboolem lu ñuy tuddoo fenn fu nit yaakaar rek am na ñu fa nekk di fa so di tuddoo lool te yàlla mën naa def sax faw wéeruwaay mënut muntu ñàkk rek waaye bañ fay wéeru ci sax gën a amuñu wenn melokaan muñ mën a xàmme te ñooñu xàmmees na leen waye di dikkal na leen dal na leen ba noppi du leen wàcc yàlla nu yàlla musal ci ak waye di te joxoñ na ba faw ci ak way la def suñu diggante ak suñu boroom mu néew mu bari yàlla nañ ko mën a saxal la séq ak suñu moroomi jaam te lenn la warnu lenn la warunu waaye noo ko warlu luñ ko tàmbal yàlla bu mu dakk te yàlla musal ci pexe seytaane ak pakkam te def ci suñuy xol ak muñ yàlla moo joxe woon moo jëlaat yàlla moo joxe woon moo jëlaat junj naa ne kenn ku am ñaar ba ñett mas na laa dal waaye nag la mag digaloon ku bëggoon a xaru ñu bi béjoo ko indi ci kanamam mu nekk ko loola tax di xaru mu lim yu bare bare bare bare bare mu ne ko bu sa waa kër yekkee taajal la mu tàng dana la tee lekka mu ne déedéet mu ne ko nooy def mu ne ko damay ràcc di lekk mu ne ko addunaa mu noonu lu la ci mën a dab xamal ne yow ay nit yaa war a jàkkaarloo ak moom yaa ko war a saafara ndax in eh, inni jaalu fi ardi xalifa ci jënn jëmm la ko doon wax waaye jëmm joojee mënu jur ñun ñëpp kenn ku ci nekk day bu fa fa mu war a féete na jàpp ne mooy jëmm joojee yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin